tàllal leen loxo yi gën di mindeef daara way gën di mindeef daara jiin jiin leen awuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waa téléspectateur u fkr 92 point com bu fondation Keur Rassoul dikkaat nañu fii ak yéen di def ak yéen seen émission ma sopp rasulillahi alayhi salaatu wasalaam tey nag ñu bëgg leen waxtaan ak yeen saar bu am solo saar yëpp am solo waaye tabaarakallah saar la boo xam ne saaru jamono la te saar boobu ñu ngi koy gën a gis ci jamono ji nga xamante ni moom la ñuy dund muy sóoratu takaathur allahu akbar yàlla mi ngi wax subhanahu wa taala azza kamal baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhaakumu takaathuru xataa zurtumul maqaabira kallaa sawfa taalamuun thumma kallaa sawfa taalamuun kallaa law taalamuun ilma alyaqiin la tarawunna aljahima summa la tarawunnaha ayna alyaqiin thumma la tusalunna yawma idin ani naaim sadaqallahu alazim yàlla mi ngi wax ak nit ñi subhanahu wa taala azakamal alhaakum alhaakum takasuru jàjju nag xarfu tanbiix alhaakum ay yéen li ngeen nekkee gis naa ko li ngeen nekkee xam naa ko seen di tépp takaasuru mooy di dajale di jéem a ëppalante alal dajale ay milliards sama milliards yi bari na sama kat-kat yi bari na sama immeuble yi bare na moom rekk mooy sunu yitte alhaakumu takaathuru yàlla nee na yéen a ngi ëppalante alal yéen a ngi ëppalante kat-kat yéen ngi gën a sutlante ay immeuble allahu akbar nga xamante ni saar wi mi ngi wax ak jamono ji la rekk sunu yitte sunu yitte yëpp maa la gën a bari milliard maa la gën a bari ay million sama kat-kat moo dàq sa bos sama mercedes moo dàq sa bos sama immeuble moo gën a suut sa bos maa ngi ak R plus 10 maa ngi ak R plus 5 maa ngi ak R plus 3 maa ngi ak R plus 4 loolu rek sunu yitte tabaarakallah waaye saxul wéyul saxul wéyul ndax immeuble yi ñoo nu gën a wér te ñoo nu gën a yàgg dañuy gis immeuble boo xam ne dina dure cent ans wala immeuble boo xam ne. dafay durer cent cinquante ans yàlla nee na moom ngeen di ëppalante te la ngeen di ëppalante saxul wéyul li tax saxul wéyul yàlla ne xatta zurtumul maqaabira allahu akbar ëppale bi ngeen koy ëppalante bu ngeen doxee tuuti bàmmeel yi nuyu leen allahu akbar xatta zurtumu ba ngeen dem ziyaare ji dem nuyoo ji dem gane ji maqaabira jam ay xabru bàmmeel yi allahu akbar kon ndekete li ñuy ëppalante lépp ndeke li ñuy li ñuy rawante yépp ci wàllu alal ak ci wàllu immeuble ak ci wàllu kat-kat ndekete yoo dañ ko fi bàyyi dem ziyaare ji bàmmeel yi dem ziyaare ji armeel yi allahu akbar di xëy bés di xëy bés wallahi ak koo mën a doon ku yàlla mës a bind koo mën a doon dinga nga xëy bés boo xëyee am jant am jant boo xam ne jant boo xam ne doo fekke soowam jant bu jóg boo xam ne doo fekke soowam ku mën a doon dinga xëy bés tamit am jant bu soow boo xam ne doo fekkee xëyu jant boobu ak koo mën a doon wallahi allahu akbar alhikumu takaasuru xatta zurtumul maqaabira yàlla ne kalla andi xarfu zajrin allahu akbar mooy xarafu jàjj kalla ci dëgg kalla li kalla li allahu akbar kalla xarfu zajrin sawfa taalamun yàlla ne di ngeen xam moo tax yàlla yàkkamtiwuñu xam na ni ñun dañu teew ci kanam saw fa taalamu sa bokkul ak saw fa sa tansiif la saw fa taswiif la moom la tubaab di wax futur kallaa saw fa taalamun yàlla ne dingeen xam suñu boroom def tawkiit dafa am lu ñuy wax tawkiitu lafzi ak tawkiitu ma'nawi fii nag ci grammaire arabe moom la ñuy wax tawkiitu lafzi dafa bamtu kalla sawfa taalamun indi summa kalla sawfa taalamun indi xarful atfi summa kalla indi xarfu zajrin sawfa taalamun def tawkiit kalla sawfa taalamun summa kalla sawfa taalamun ca dëgg-dëgg li wérte wóor di ngeen xam ñu ne lu ñuy xam ak lu nar a xew ak lu nar dikk ak lu ñu nar a jànkonteel yàlla ne kallaa law taalamuun kallaa law taalamuun xoolal mu nga indi xarfu jàjj rek xarfu zajri moom rek lay indi summa kallaa sawfa taalamuun indiwaat kallaa law taalamuun xarfu imtinaa law taalamuun ay bu ngeen xamoon allahu akbar ngay dégg ci ne nga dégg ci ne bu ñu xamoon du ñu fi nekk di dajale ay alal bu ñu xamoon du ñu fi ne di njëkkalante di gën a sutlante ay immeuble bu ñu xamoon du ñu fi ne di gën a ëppalante ay milliards bu ñu xamoon du ñu fi gën rafet rafetlante ay mercedes ndekete bu ñu xamoon ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xamante ni yàlla xam na ko li ñuy njëkkalante mooy jaamu yàlla fastabiqul xayraat li ñuy njëkkalante muy yiw li ñuy wara njëkkalante muy ëllëg li ñuy jariñ ak li ñuy dugal àjjana summa kallaa sawfa taalamu kallaa law taalamu ilmal yaqin yàlla bu ngeen xamoon ci dëgg-dëgg xam-xam ilmal yaqin xam-xam xam-xam bu wóor ñetti xam-xam dafa am ilmul yaqin am aynul yaqin am xaqul yaqin allahu akbar dafa am ilmul yaqin ilmul yaqin mooy xam-xam boo jàng aynul yaqin mooy xam-xam boo gis xaqul yaqin mooy xam-xam boo jànkonteel ma expliqué la ko bu gàtt nga dégg ko mën nga jàng léegi la mer muy géej la mer muy géej géej da ko jàng rek mais mosoo gis géej dégguloo géej da ko jàng rek la mer ñu ne c'est une étendue d'eau salée nga jàng ko te xamoo lu meer kooku mooy ilmul yaqin am lu ñuy wax aynul yaqin aynul yaqin mooy xam-xam boo xam ne da ci da ko gis nga nag ba tiim géej toog taxaw ci tefes ji nga ni ah la ma jàngoon léegi gis naa ko jànkonteel naa ko gis naa ko gis naa ko nii mooy aynul yaqin xam-xamu gis bee xam-xamu jàng la da ko dégg bii xam-xam gis la am na bu leen gën a wóor bu leen gën a wóor nag mooy xàqul yaqin mooy nga simmeeku dugg ci biir géej gi féey nuuru féey jël ndox mi teg ko sa làmmiñ muy xat loolooy xàqul yaqin allahu akbar yàlla ne kallaa law taalamuuna ilmal yaqin ay bu ngeen xam-xam bu ngeen xamoon xam-xamu jàng ilmal yaqin mooy xam-xam boo xam ne dafay wóor kallaa law taalamuun ilmal yaqiin la tarawunna al jaxiima allahu akbar di ngeen jàkkaarloo ak safara muy bërbëri di ngeen jàkkaarloo ak safara muy bërbëri allahu akbar di ngeen jàkkaarloo safara muy bërbëri nga gis ferñeent yi mu nga gis safara di sànni ferñeent yu toll ni mu taax su ma la tarawunnaa aynan yaqiin yàlla ne danaa leen ko wan ak seen gisug wóolu su ma la tarawunnahaa aynal yaqin dana leen ko wan dana leen wan safara ak gisug wóolu ngeen jàkkaarloog safara allahu akbar yàlla nañ ci yàlla musal lan la yàlla tëjee aay bi lan la yàlla tëjee saar bi thumma la tusalunna yawma izin ani naim thumma thumma topp gannaaw ga la tusalunna tusalunna muy ni noonu tawkit la tus alunna allahu akbar indi laa mu xasam indi nunu tëw ki ca gannaaw la tus alunna danaan leen laaj laaj bu wér laaj par force yow ma usine bu yow ma xiyaamee bés boobee yow ma usine ani naimi ci xéewal bi ngeen am yàlla nee na yow yee ngeen doon dajale xoolal mu indiwaat la mu tàmbalee la ngeen doon dajale muy milliard la la ngeen doon dajale muy immobilier la ngeen doon dajale muy 4x4 ya la ngeen doon dajale muy Mercedes la ngeen doon dajale la ngeen doon dajale la ngeen doon dajale mu bari lool yàlla nee na summa la tusalunna dana leen laaj yow mi usine bés boobee ani naimi xéewal bi ma la joxoon man yàlla parce que xéewal bu ne mi ngi bàyyi ko ci yàlla ani naimi xéewal gi benn par benn benn par benn benn par benn foo ko jëlee ak foo ko dugal foo ko jëlee ak foo ko dugal kon nag ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala azakama bu ñu yàlla laajee suñu xéewal yi yàlla nañ ko mën wax suñu borom ci barke Seydina Muhammad yàlla nañ ko jëlee fu sell dugal ko fu sell xéewal gi ñu yàlla jox yàlla nañ ko jëlee fu sell yàlla nañ ko dugal fu sell ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nag waxtu wi dab nañu seen émission ngi noonu tabaarakallah du ma sopp rasulillahi alayhi salaatu wasalaam di nuyuwaat ñëpp di ñëpp bu fkr com waa fondation Kër Rasoul asalaamualeykum wa rahmatullah wa